Euh, ba mën ko may mu fas ak accusation bi nekk ci moom parce que il faut quand même rappeler que dañu naan état état mm-hmm. mais c'est un c'est un citoyen mm-hmm. moo moo porté plainte léegi nag euh, dina am jàmm ndax jàmm lañ koy ñaanal je le connais relativement bien Babacar Touré mm-hmm. euh, on a d'excellents rapports mm-hmm. la may ñaan mooy mu am jàmm génn ci mm-hmm. situation yu mu nekk mais euh, je le connais suffisamment courageux pour faire face à son accusateur euh, te lu yoon nag wax ñoo xam ne yoon wax na ko je vais pas interférer dans le les de la justice yoon bu fi nekkee li ma bëgg man personnellement c'est ma conviction je reste convaincu que mm. la justice elle impartiale et elle est là pour mm. tout le mm. am na nag des peut-être brebis galeuses ñu ko mën a mm. waxee comme dans tout métier dans toute corporation mm-hmm. mais jàpp naa ni yoon euh, bu gisee ni lañu ñu ko tuumaal euh, du yoon mm-hmm. dina def euh, lii di liggéeyam l'essentiel mooy na ànd ak wér te mm-hmm. mën a dékku loolu mu mu mu nekk amin leneen ci loo xam ne fës na ci xibaar yi muy mbind mi nga xam ne ñu ko doon amal ñe la élection tànneefu njiitu bu atum 2024 démb lañu